saafara suuf Lac Rose bay jox saafara attention Lac Rose saafara war na ko ndomba war na ko ndomba saafara war na ko ndomba war na ko ndomba war na ko ndomba ñu koy jar gànnaaw war na ko ndomba du ko bàyyi saafara ma nga ca wetu Ahmed Lac Rose la laa ilaaha illallaah saafara daan na Ahmed Lac Rose saafara daan na ko wala lu arbitre di wax nañ xaar arbitre yi xaar arbitre yi lu ñuy wax sumira pura das dabas amat lagros lani